mu exilé woon lu yàgg moom maître nga Demba Touré nekk li nga xamante ne mooy ab greffier chef foofee ca la nga xamante ne rek moom moo nekkoon tribunal bu maatam fañ ko affecté woon gannaaw ba mu yëkkatee ay kàddu daal di koy tegoon ca ka fi nekkoon ministre de la justice Ismaïla Madior Fall ci la daal di gàddaay daal di dem fële ci réewu Mali daal di exilé moom nag ci week-end ñu daal di génn ci la daal di ñibbisi woon ci biir réew mi ñu bëri amoon yaakaar ne moom mi le dañ ko daal di bàyyi comme ni ñu bàyyee yeneen ay détenus ci libération des détenus mu ñëwoon nag ñu daal di koy defaloon ab tertu bu am solo mu daal di wër mbedd ndakaaru yenn ci ay ah, banlieue foofee ca ah, diwaanu ndakaaru moom nag tey jilee ci suba ci àllarba ji la waa division des investigations criminelles daal di koy teg loxo moom mi la di maître Ngagne Demba Touré gannaaw ba mu dellu see ci réew mi def ci sax semaine ñu daal di koy teg loxo moom maître Demba ah, Touré ci gàddaay ba mu defoon fële ca réewum Mali moom nag ba mu ñibbisee tey jile le waa division des investigations criminelles daal di jàpp ci fàttali fàttali nag Toussaint Manga bokkoon na ci ñi dawoon waaye moom bu mu ñibbisee dañ ko daal di raje ca poste poste de santé médecin chef foofee ca diwaanu ngoor jamono jile en tant lañ ko daal di bindal ngir mu daal di koy affecté waat feneen waaye nag jamono jile jëlagul service ba tey jile moom maître nga Demba Touré tey jile lañ ko daal di teg loxo foofee ca euh, këram